ku nekk di dóor ci si dënnam dënnam sa man man man man man égoïsme rek mooy taxaw te égoïsme fu mu am kenn du dem fen kon lii dimbali nit ñi ci leneen lu ñu mën a nekk lu mu man doon nañu am équipe bu équipe amul rek dara du wax équipe mooy yor lépp ci lu mu mënta doon équipe lañ fa soxla ba ñuy gouverner équipe la soxla bu ñu amul équipe bu baax du ñu dem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 dama laaj xale yi ne leen qualité bii ñëw dafa am lu ma xelaat te bu ma ko laan def yéen laa ciy laaj ngeen wax seen xelaat ba pare ñu ma lan la man leen jumaay Tiwaawan waa Tiwaawan moomuñu ko ñoo ñoo ma ko bokk maanaam masaajida lillah yàlla moom jàkk yi kon ñun dama am xelaat xelaat bi mooy lan dama bëgg bu àjjuma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 bi mu daan wax ne nañu yar suñuy doon yàllaa ko wax ci alquran wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyahu wa bilwalidaini ixsanan imma yabluganna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira man moo tax ku ma xam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 mari taw ñaan ci moom laa ne woon yal na yàlla jàppale ko lañ ko dénk Amath Samb ba baax yal yàlla jàppale ko secretaire général général Wéram Diop moom la ñu dénk armée bi yal na yàlla jàppale ko Abdourahmane Sarr moom la ñu dénk alal ji yàlla na ko yàlla jàppale it yàlla alal ji yàlla bari lool ba yëpp am ci lu ñu bëgg gouverneuru Dakar ñu ngi koy gërëm maire Plateau ñu ngi koy gërëm ambassadeur yi fi nekk yëpp bu Maroc ak bu Mauritanie ak Guinée ak Cheikh Tidiane Gadio waaw kooku moom sama waayu bopp la sama xarit la bu yàgg yàlla yàggal suñu xarit Seydou Gueye Seydou Daline Diallo collectivité Lébou loolu mooy ñun collectivité Lébou ñun la ñun ñooy waay Ndakaaru les dos penc directeur u institut islamique mu ngi ni toog Cerno Ka ak waa Grande Mosquée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 فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الفضل والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد يلا يلا ننج يلا يلا ننج يلا يلا ننج ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Voilà, nous venons donc de suivre le sermon de l'imam, imam El Hajj Alin Moussa Samba, un sermon fait en français, en arabe donc et en wolof.